waaw jërëjëf du je pense que loolu question bu fi amoon la ci at yi weesu ñu ne euh, établissement. bu nekk am na sa règlement intérieur maanaam ni ngay euh, defe sa potum biir ni ngay doxalee sa établissement loolu nag mu amoon ci loo xam ne dañu ne woon su fekkente ne dañu euh, nekk ci école privée catholique am na nu ñu gisee école am na nu ñu gisee suñu nekkin maanaam nit ñi dañu war a booloo nekk benn man école privée catholique laa jànge euh, CI maanaam douzième bo terminal mhm. donc ñun dañ doon def catéchisme mais bu ñu def catéchisme musulman yi dañu def morale mais kenn mosul xam kenn mosul ràññee kan mooy catholique wala kan mooy jullit ñun ñëpp benn lañ woon mhm. donc problème boobu mosul am ñu ne nag bi ñu demee ba nga xam ne dafa am ñoo xam ne dañu beru beru seen bopp di fësal seen euh, diine ba tax ñu ñuy bañ a jaxasoo ak ñeneen ñi te ñëpp nekk ay doomu Sénégal ñëpp bokk école bi loolu moo taxoon règlement boobu ñu dal di koy jël. Mm-hmm. wante bu ñu fàtte ne euh, ndeyu sàttu réew mi constitution bi dafa ne ñi nga xamante ne ñooy les communauté religieuses euh, nguur gi daf leen jox sañ-sañ ñu euh, jàngale ci wàllum jàngale te nguur gi dafa war a génne loxoom ci lépp loo xam ne. Euh, ci ñoom ni ñu doxale la mm-hmm. loolu euh, constitution bi moo ko wax te mm-hmm. constitution bi mooy ndeyu sàttu réew mi mm-hmm. constitution bi boole ci itam ne euh, dañ leen war a bàyyi ñu doxal seeni mbir sans entrave maanaam kenn waru leen gàllankoor kenn waru leen andil ay jafe-jafe am na ay école yoo xam ne école yooyu ay jullit rek lañ fay accueillir boo boo demee nekkuloo julit du mënuloo fa jànge pourtant loolu am na fi te mun nañ munoon nañ wax ne c'est le principe d'égalité kon ku ne war nga mun a inscrire ci école bu la neex. Mm-hmm. mais ñi euh, école privée catholique kenn waxul ne catholique yi rek ñoo fay jàngale mais ñi fay jànge ñi ëpp sax. ay jullit lañu mais ñëpp benn lañu mos a nekk mosul am xaaj ak seen donc yaakaar naa ne problème voile boobu euh, nañ ko teg ci suuf parce que. Euh, Euh, établissement bu nekk am nga sa règlement intérieur am nga sañ-sañ ni suñu kër wala suñu école nii lay doxe euh, te loolu war nañ leen ko nangul parce que loolu moo dëppoo ak ndeyu sàrtu réew mi léegi nag bu fekkee dañu bëgg a andi yeneen jafe-jafe euh, kon principe d'égalité bi constitution bi wax dafay waroo ak loolu parce que kon ñi nga xam ne aussi nekkuñu ay jullit nekkuñu ay musulman parce que jullit mooy ku gëm yàlla kuy julli. Mhm. mais mun nañ wax ne nekkuñu ay musulman ñooñu euh, mën nañu euh, ne ñoom it war nañu mën leen war nañ leen mën a accueillir ci école yooyee te mhm. yaakaaruma ne foofu dinañ leen may xëy na euh, liberté ak ubbite ak yaatuwaay bi nga xam ne moom la école privée catholique yi am.